على محمد خير منى مع خالد قمته وذواء ثم صلاة الليل والسلام على الذي تبلغ أقلام سيدنا سبيل المقدمين من الذي تحول عليه من قدمي محمد وسيرتي وجنتي أنا أخاف الواسع وجنتي وآله وصحبه الأبرار الآل والمالك الأبرار هذا وقد يتم التقرب أين نبي بها كما تقروا نويت من سرعان عندما تنتظر مصطفى عزيز في الماضي أدمنت من ذنبي فلا يعزم لمن بجاهي كفى وسلمى أهمه على قولي من دلال وكل سر وعلى وغرل أشكره شكر يذوب سيدا بسر ولا يذوب نحن كيدا حمدا وشكرا أسمى غرورا ربي ورا وسسار غرورا فقلت ما سمى الذي من قدما مسريا بها على من قدما رقيا كون خديم الأسمى وأن أفوز بالمغاني الأغنى ملتمسا من مالك أيدفعا بآله يريد أن ينتكى جعلنا الله بكيد المصطفى صلى عليه بسلام مصطفى نحو المبارك اليقي الأزهابا كما نزيك بنوح وبإبراهيم فوف لفي الله يوح فوف سنتو باي وح فوف سنتو باي وح معنا ميغ وحق فوف إبراهيم إبراهيم mu bi jaay asoodi yooyu yëpp sëñ bi mi ngi ci doon wax ak maanaam diggante boobu wa bi Ibrahima. def fa zino bi wax fi ne rajima. wa kon bi Moussa wa bi jaay Isa. wa aqiyani dunya wa oxra buusa. wa bi Muhammadin rasulillahi. sa sa sa baax na